هنا وأخذ اليوم السماء تمور اليوم السماء تمور وخذني من الفجار والبهر هانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر ذوي الإسلام بهاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله ترى محمد سفيه الذي كل يقي وينير مالال والأصحاب أزل دامها زوي الزب عني كل من سيجور على خلقه سديخي غلوان ربي كما خارنا في النار هنا يسير ولا سيفق الفاروق من ربهم ردا كبير كما قد سبه وهو وسير ومنه لسي نورين أطير داه كما فاس بالنورين وهو زبور على والد سبتين أسنى ردا كبير ridwaan rabbi kama jaado man jaara bi sakafoor bin artaji min maliki nasro hala sawi sirgel de taflisi hina tajuur yasununani waxta fi rabbi la daymo asiran lahum wal kullu sama ولا السوء إلى الفجار حود أسير masiri ilal wahabi jalla jalalo wa mali ila khairil rimin masiru tamassak bilablil matini muratilan wa binurwatil usal fi hiya nur bi sirtu min rabbi li rabbi muaidan wa li nasara wal burtumur wal kamzu wal kibrit wa sadluna bi tantafi narun adan wa sabur ربي كريم واسع ويفضل ووسيلة عبد الهداي في مفاد la yo Fadal حياتي لك خربتي ومواتني والمنزلات لك كان xaar yow de la الجميع المجملا هو مالك مالك هو نافع نافع هو رافع رافع هو واسع هو الجميل المجملا مالك له وكان ha لك تنزل ردوان من دعا قيدا عليهم وعلى رفيقهم الذي من يكرم من يشاء تغتدي في مسكن توبى لتل لك تنزلا وليت عن لحو ولو مدبرا لله بالقران نعم المجل ابقي بي وبخدمتي ما حن بي وجلسي من لا يسال عبدا له ويسوق لي ما استي ولي جل جلاله اتوكل ناجيته ورا كوني رديا لندو خال يبدلا Yeah. له من بارك بارك لوي أندم بارك dëggu luy naaw jëm kaw dem baari saxaaya gouverneur ñu yaa moom ndar danu nax danu ndar bind bind ndara moom ndar baari saxaaya sang baaraay Madou Lamine topp sëñ baara jugal màggal kooku bambay baayam mbaari saxaaya sang baaray madu laamin madu laamin baara sëñ aji sama may sunu mbër mbaari saxaaya lanu yaakaar fay jëm moom lanu yaakaar abadan baari saxaaya hadat wa yaa ilu xum wasan la yaa ilu wadam wa yaa ilu ñoom xam nan dox duñu dugg luy naaw jëm kaw otoraay Tuuba lay jëm baari saxaaya gouverneur ñu ne yaa moom ndar dañu lay nax dama moo ndar ki la bind bind ndara moom ndar baari saxaaya gouverneur ñu ne yaa muxtaar yal na fi yàgg amin la moom mooy borom Tuuba bari safaaya sëriñ Sidil muxtaar yal na fi yàgg amin te sax fi faw bari safaaya sëriñ Sidil muxtaar yal na fi yàgg amin te sax fi faw bari safaaya idi jami ana siraatal mustaqim wa bi seen kullana bila يا من بلا زمن خير أجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيا هدى بالخير تطلقوا إياك نعبد ونستعين فإنك المحمود والمعين دلتنا بك عليك يا رخيب يا من بينوله يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى بيحبطنا يا رب ربنا يا ربنا يا هبنا واجعل لنا ذوات دين فائقة وتكفينا عيد المهل وبيننا وفيما الأولاد يا مالك الحباد والبلاد وبارك فينا وعلى منصبا لغير راتب لنا استجب يا خالق الكبار وجملة الشحار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم الهمل الصالح يا قديم اليمن واليسر وخير سددي في خير زيغ قد أتى قد فاق كل زيغ زيغ الأهدي المالك المكرم المتهدي مددي نجا بما خير سددي الله من كل كريم أكرم من أما خذله تكرم أسم له كل كان إيماني ولا سم الإحسان للرحمن وأدعو بشكر بلا كفاني طفيسا سميتها جالبة المراخب في عاجل كاجل سميتها جالبة المراخب في عاجل كاجل يا nanu yàlla feewaleeg seytaane te boole noo Cheikh Bamba fil tibbal te may nu xéewal yu doy teelu nu am mu doy noo Serigne Aziz Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér maa ngi ñaan ku fi teew na wax sa làmmiñ Serigne Aziz Mbacke yàlla na fi yàgg ndax moom mii ban doone ay tuttànk yu ndaw géejawaay dañ kanaan fekk boobu dañ daan nelaw ci baas bi at moom mu ma njëkkee dem bàyyi Aliou Ndiaye maam jaar bi may daaj jàngam moo ko daan moo ko daan jàng ci njëkk a woote Dakar ay ndaw teew moom sëñ Aziz mii ci moom laa ko njëkk a xamee Mbàkke yal yàlla guddal saw fan Mbàkke yal yàlla wéral la ñi ñaan ci barkeb tey si wakaana xaqan barkeb xasida yi yal yàlla guddal saw fan lool bis bi ku fi ñëw dolliku nga boo ko waxee boo ko waxul dolliku nga mën nga fee jëlee loo xam ni mën nga cee defar sa àdduna ak sa àllaaxira li nga wax ci Mbàkke yal na yàlla guddal soo fan yal na yàlla guddal soo fan te ni ma ko yégee na la ko ñëpp di yégee yal na yàlla wéral la aaral la ndax sëñ Aziz moo doon koo xam ni ku ku jaxasoog moom da nga naan sëñ Aziz mën la gën a bëgg njariñ la lu ànd ak lor mën naa ko waat billaahi njariñ lu ànd ak lor foo toog moom waxtaan ak moom jariñu boo doonee nit nag di nitee di déglu li muy wax dalay dalay niteel te sëñ Cheikh Oumy Mbacke mu sëñ Fallou daana wax na nit neex na loolu waaye nitee jafe te sëñ Aziz mi kuy jaxasoog moom da ngay nite Mbàkke yal na yàlla guddal soo fan yal na yàlla wéeral la yal na yàlla sàmm li nga yéene lépp suñu borom defal la ñoo ngi jéglu bu baax a baax jërëjëf sëñ Diop